mbokk yi seetaan public tv dal leen ak jàmm ci seen flash info li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci président de la république Macky Sall dina jàkkaarloo ak askan wi 31 décembre bi ngir def ab discours à la nation ci discours boobule askan waa ngi xaar président Macky Sall ngir mu wax ci li jëm ci troisième mandat bi ak lu bal bi am ci xaalis bi ñu jagleloon xeexum covid 19 tey ji aljuma la ñuy di waa société sivil nara amal seen mars ngir ñaawlu luubal bi ñu luubal alal bi ñu jagleloon xeexum Covid 19. fale ca place de la nation. wax ci concert des casseroles bi waaye wi Askan Wi wootee ki di Ousmane bi bokk ci benn Bokk Yaakaar bu Ziguinchor moo ngi ñaawlu lu ñu mel ndax pour moom ñàkk respecté askan wi la waa Yewwi Askan Wi ñoo ngi wootee concert des casseroles boobule waxtu bi ki nga xamante ne mooy président de la république di amale discours à la nation bi mu war def. le 31 décembre ca kaso Sébikotane ba mu nekk la yónnee askan wi ab bataaxal ci bataaxal boobu le moom Cheikh Oumar Diagne nee na nguur gi du mësa bàyyi di betti askan wi ci lu jëm ci jublang ñakk wax dëgg ak di instrumentaliser institution yi ñu wax ci mbirum Pape Alé Niang ñu rawale woon ko fale ca hôpital principal bu Ndakaaru moom Pape Alé nee na médecin yi ko doon faj nañu arrêté faj mi te delloo ko kaso ba mu nekkoon lu ni mel moo ngi xewoo ci ab xiifal bi mu amaloon gannaaw bi juge bi dàkkale ab contrôle judiciaire bi mu tegoon ci dama delloo ko ca kaso ba wax ci kàddu yi xalifa Sall yëkkati moom xalifa Ababacar Sall moo ngi wax ne amul benn réccu réccu ci li jëm ci caisse d'avance bi nga xamante ne moom lañ ko jàppee woon teg ci ne am na ay magistrat yoo xam ne mënatul leen a ci ay kàddoom moom xalifa Sall moo ngi wax ni Macky Sall particularité mooy ñëpp nekk su contrôle judiciaire wala ñëpp ñu gracier mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yi ci tënk sant ak gërëm ñeen na leen di leen ñaanal yéen doog jàmm